aouzu billahi samil alim mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum sama collègue député yi asalaamaaleykum ñaan yàlla ñaanal Sénégal jàmm ñëpp am jàmm ziar na ñëpp di sant yàlla nag ak yonent bi di sant waa Sénégal di sant Cheikhul Khadim suñu sëriñ di sant le président Abdoulaye Wade le formateur de formateurs le plus grand républicain du Sénégal di sant bu baax ku nu encouragé te nekkul ci salle bi di sant suñu candidat le président Karim Meïssa Wade di sant maître Madické Niang ndax tey nekku fi waaye l'histoire m'a donné raison j'ai été révélé au grand public lors du vote de la loi sur le parrainage monsieur le ministre je pense que tey fii honorable député Amaba Dia toog sama doom jee toogoon na fi ma ne ko nous avons des idées et nous les défendons ce parrainage ne doit pas exister au Sénégal jàpp naa ni tey bi nga xamante ne joxaat ngeen loi joxaat ngeen droit joxaat ngeen dëgg bi nga xamante ne tey matuñu woon 15 fee lañ daan toog Sénégal yëpp di ñu dégg ñuy teg loo xamante ni ñëpp a koy dégg jàpp naa ni lii ak cant rek laa ko mën a jàppee moo waral ma yéeg ndax dama ne woon nañ ma retiré waaye dama ñëw pour sant xam ni l'histoire m'a donné ma jàpp ni nag loolu daf bu amee dafa am fu mu tegu ndaxte nit dangay am coach sa derrière nous avons des coachs au groupe parlementaire liberté et démocratie derrière ñu ñu ciy sant ñi nga xamante ne ñoo doon wax ne lii baax na lii baaxul nañ ko doxalee nii nañ ko waxee nii loolu tey moo law ba indi waxtaan bi nga xamante ne mooy le dialogue des peuples yàlla def parti démocratique sénégalais et ses alliés teew ci waxtaan ci ba la ñu doon défendre depuis 2017 ba tey yàlla indi ci solution bu leer nañ parce que ñun xam-xam kese la ñu mën a demee mënuñoo demee nen boo defee opposition 27 ans gouverner 12 ans nekk un homme de la trempe de Ablaye Wade mënoo juum ci benn waxtaan booy waxtaan. donc je pense que Sénégal tey war na ñu xam ne lii teew lu baax la ci ñëpp parce que ñun dañoo toogoon fee bañ ko. on ne peut pas vouloir une chose et son contraire fee laay toogaat yëkkati sama loxo ne ànd naa ci asalaamaaleykum wa Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Malik Diop. Abbas Fall, le suivant. Monsieur le Président, honorables députés, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, il est des lois qui des lois parfois polémiques, il est des lois qui sont parfois des lois qui défraient la chronique. Il est des lois qui sont issues de problèmes réels que les citoyens ont au fur et à mesure de choses importantes. Il s'agit parfois, par exemple, d'élections. C'est le cas précisément de la loi sur le parrainage. Il y a eu des polémiques, il a eu des discussions, il y a eu des avis, beaucoup d'avis. La rationalisation des candidatures, la rationalisation des dépenses publiques, etc., etc. Il fallait, à un moment donné, voter une loi, partir sur une base et continuer. Dans le cadre de l'amélioration continue, je pense qu'il est important que nous puissions, nous, comme à l'international, témoigner ici de la vitalité de la démocratie sénégalaise. La vitalité d'une démocratie s'évalue à l'aune des discussions entre les parlementaires, les populations, etc., qui permettent d'améliorer au fur et à mesure des éléments textuels qui sont mis la place publique. C'est pourquoi, Monsieur le ministre de la Justice, des Sceaux, ce projet de loi portant révision de la Constitution, qui a pour objet d'abroger et de les dispositions de l'article 29, est consolidant. C'est une avancée démocratique, parce que tout simplement, il de discussions qui naturellement de trouver des solutions. Je vous l'ai dit en commission, Monsieur le ministre. Vous n'êtes pas rentré dans vos officines et vous ne nous avez pas sorti ces éléments sur la base de réflexions entre quatre murs. Non, pas du tout. Il s'agissait de discussions, il s'agissait de dialogue national impliquant tout le monde. Et c'est textuellement que vous avez proposé ce qui est issu de ce dialogue qui est un national, qui n'est pas précisément un, un, dialogue politique, la partie politique étant intégrée. Je voudrais également, Monsieur le ministre, vous nous avons été très satisfaits, toujours dans le cadre de la vitalité démocratique, du fait que vous soyez à l'écoute de ce que les en tout cas premier, avions proposé, à savoir le de l'article 87 de, euh, de l'article 87 proposé en son Et ça, je pense que c'est important dans cette vitalité démocratique. Monsieur le ministre, vous nous avez écoutés et vous, vous nous avez entendus lorsque nous avons parlé du cas de notre collègue Biram Souley Diop. Nous tous, nous avons porté ce plaidoyer. Je pense que c'est important que des parlementaires puissent porter ensemble un certain nombre de plaidoyers et ça donne des résultats. Parce que je l'ai dit en commission, Nous avons un collègue qu'on connaît courtois, qu'on connaît également très consensuel et qui, comme un homo sapiens sapiens normal, peut faire naturellement des erreurs. Et je vous avais dit en son temps, même la diplomatie euh, sénégalaise arrive à soulever des montagnes, à déplacer des montagnes. Et je pense qu'il y a beaucoup d'avancées par rapport à cela et nous vous en remercions. Mesdames et messieurs, Je pense que le débat, il est important, mais il est important qu'au fur et à mesure, quand il y a des avancées démocratiques, que nous, sommes des parlementaires, nous puissions toucher du doigt ce qui se passe au niveau du Sénégal et montrer également à l'aune au, au, monde entier que le Sénégal est une démocratie qui a une vitalité qui permet aujourd'hui d'être fier par rapport à l'international. Je vous remercie. chers collègues. La parole est à notre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 maa leen di nuyu di nuyu suñuy di nuyu suñu collègue député yi donc concernant toujours l'article 29 euh, man je recommande vraiment toujours qu'on s'aligne sur les recommandations parce que comme l'a dit ñëpp la ñu war a bokk surtout man ñi may gën a xalaat mooy les indépendant parce que bu ñu waxee ne ñi nga xam ne dañu am parti politique mun nañ leen permettre ñu jaar ci élu yi te alors que indépendants yi dañ leen wax ñu dem ci parrainage Euh, euh, citoyen bi dina xaw a métti ci ñoom alors que bu nekkee dans une démocratie majeure comme aime le dire le président de la république dañu war a may chance ñëpp ñu bokk c'est important monsieur le ministre monsieur le ministre yow yaa ñu tàmmal ñuy dem rëbës ñu dem ci prison yi waaye lañ fay fekk wax dëgg yàlla jéggi na doyo je pense que ñun ñëpp tey ji dañu way am le sens de l'humanisme parce que corriger ne veut pas dire maltraiter mais prison yi ma gis ci réew mi maltraitance moo fa am loolu bugg nañ ngeen taxaw ci temm yàlla nit la gën a fonk de nañ ci góorgóorlu les libérations nationales nous avons fait de très grands efforts ici au niveau de l'Assemblée nationale il faut que ñu wax ko keroog balaa ñu tàmbale gé bàyyi nañ suñu quatre député ñu liggéey ci jàmm tey bàyyi nañ Birame Souleye c'est important man dama wax dama wax ne dañu war a am vers dans le sens vraiment que ñu apaiser parce que ñëpp apaisement laay dégg ñuy wax nañu libérer les détenus politiques ñu dellu seen kër yi loolu dafay indi jàmm ci réew mi bu ñu buggee dem ci ay élections yoo xam ne élections yu apaisé bu ñu buggee suba ñi ñuy xool ci sous région bi xam ne ne Sénégal démocratie bi fi woote mu ngi fi nañu yegg ci loolu tey jii fii nii au niveau de la assemblée nationale dafa am loo xam ne dafa am te dëgg la mooy fii bipolarité moo fi am ginnaaw yàlla ginnaaw yàlla président Macky Sall moo fi indi yenn député yi waaye tam ginnaaw yàlla tam président Sonko moo fi indi yenn député yi à part les non inscrits attention à part les non inscrits nañ ko waxante yàlla rek yàlla dëgg la bëgg man dëgg rek laa leen di wax yàlla dëgg la bëgg léegi ñaar ñooñu ñaar ñooñu ñaar ñooñu ñaar ñooñu dañoo war a waxtaan